piste de solution yi danañ ci dellu siwaat mais Souleymane dama dégg sànq nga wax ni euh, Baye ak Mauritanie euh, ba xam mën nga ñu leeralal foofu un peu lu weesu diggante li nga doon wax digganteem ak euh, xëy na naar boobu noonu ñëwoon mais jaar-jaaru baay mën nañ ci tudd Mauritanie. am lu ma kii tuuti rek ci li madame Ndiaye wax. Mhm. dafa wax lu am solo. ci gis nga ba Baye di wax ne fa inna Sénégal yi taxta dilli Muhammad mhm. Sénégal ci kéro yonantu bi lay des di kéro waaw bon dañu japp côté bu feñ bi rek. en fait dañu lecture bu légère ci bon bi dem julli ak côté mais côté euh, nit ñi il était un messager d'Allah mais en même temps euh, il était un psychologue. Mm-hmm.

Euh, saxaaba yi ba ñuy dem kenn ci ñoom yóbbaalewul dara mm-hmm. mais tey ku dem Médine gis nga nu Médine mel mm-hmm. donc la fa nekk ñoom ñoo ko fa def dañoo yegg ci amuñu dara mais ñiñ fa fekk dañ leen a jàppale euh, benn borom yóbbu la ci boutique am ne la kaay ànd ak man ci boutique bi yëngatu wala yóbbu la ca toolam ne la jëlal partie bi nga liggéey ci ba def li nga ci def mm-hmm. donc c'est pour dire que nit ñi dañu war a gëm ne fii mën nañ fi nekk def fi liñ fi bëgg a def développer sunu réew Euh, mais euh, laaj bi nga laaj mooy diggante Cheikh Ibrahim ak Mauritanie. Mhm. Euh, diggante la boo xam ne bu bu dëgër la diggante bu rëy bu dara bu jara def jàngat. Mhm. ndax xam nga monsieur Sène ñun li ñu xamoon mooy Mauritaniens yi ci ñoom la ñu daan sukkandiku pour gàggantiku ci diine. gis nga borom yi xamoon mi ngi fi gis ku ci jàngeewul ci Mauritanien rek kala jàngal Mauritanien moo ko jàngal. Mhm. sunu borom xamam yëpp pratiquement ñoom ñëpp. ci ñoom nga jànge wala kala jàngal ci ñoom la jàngee euh, à l'exception de Cheikh bi nga xam ne way juróom a ko jàngal lépp mais euh, ñoom ñooñu indil diine ñoo ñu indil tariqa mm-hmm. ñu dellu gis leen ñu ñëwaat topp ci gannaaw góor gi di daw ci gannaawam bu wootee mu jaral leen lu nekk. parce que jumaa ji bari na ay naar yu nga xamante ni ñu ngi leen fii gis. waaw na nga gis fi ay màgget. Mm-hmm. gis fi ñoo xam ne toll nañu ci âge foo xam ne. amoon nañu sax ngantu toog. Mhm. mais boo demoon wax leen lu leen tere toog dinañ ne la ñun euh, bés bii munul jot ñuy toog. c'est parce que dafa am fu Cheikh Ibrahim jaar ak ñoom gis nga dafa am lu ñuy tuddee ci droit euh, bon une loi abrogée. Mhm. yàlla dafay abrogé. Mhm. Euh, diine sax yàlla daf koy abrogé. diina dina fi nekk ñu jékki-jékki yàlla yónni beneen yónantu changé loi yi. ne ku àndul ak kii nekkoo ci li ma tëral. loi dañ koy abrogé il y a des versets coraniques yo xamné batay dañ koy jang mhm. les versets sont là mais loi ou verset, dañ ko abrogé. Mhm. ken appliquer tout ko ngi dégg donc naka noonu yalla noonu lay ubbee buntu jékki-jékki tëj ko wat benen buntu Cheikh Ibrahim bamu mu ko nar bi ko njëkk seetlu gis ko cheikh mohammed Ibnu Nahwi la tuddu Ci Mauritanie. Ci Mauritanie. Mm -hmm. C'est un Mauritanien, un shérif, un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Qui a son khalife actuel, actuel qui est Cheikh Mohamed al Hafid wala Nahwi. boo xam ne mës na nekk euh, ministre en Mauritanie. fii may wax ak yow moom mu ngi organiser gàmmu boppam en Mauritanie. Euh, di rassembler luy tolloog cinquante six réew yu mhm. euh, relation bobu mu kookoo ko indi da daan ñew and ak ay bayam di jël ci adiya ci bay ak ci papay bay mu xamante ak baay xam ne góor gi comme ñoom dañu amoon leeru xol xam ne góor gi yàlla def na ci moom loo xam ne euh, vraiment li ñuy nekk shérif yëpp mën nañoo jëriñu ci moom. Uh-huh. mu ñëw nag euh, waxtaan ak Cheikh Ibrahim ne ko ca yàlla jox laa bëgg nga may ma ci. Cheikh Ibrahim ba mu comprendre ne naar bi comprendre ne am na cër. waaw Baye Niass jaarale ko fa muy jaarale gaañi xamal ko loo xam ne xëy na yàlla dafa dogal ne loolu euh, ci loxoom la nekk. فلا عارف الا بباب واقف وخمل ودير واسق القوم طرن بفائدتي كين دو مانا ام اكسي تي ين كونيسانس ديفيني لودو داغا فغ سما بونتو مان باي مي باغا فغي ما دونك مان ما يور كاس وي ديكو سيرفير ديكو جوخ كوما نيه كوما جوخول ناك دو نان اها دونك باكو نار باكو باي جوخي مو نان با ماندي كيس كي لا في دا فا جيل خليمام جيل بيندوكاي ريك مو بيند ان ان امي ان فرير كي شيخاني بيندوكو ديريكتومون ليتر wax ko ne ko daal li ñu doon ànd di ko wër bu yàgg ne ko gis naa ko ñëwal gaaw jëriñu ba yonent bi wootee ñun ñëw fa jiitu ku ñëw ñu nekk sa njaatige ba Cheikh Tidiane wootee ñëw fa jiitu ku ñëw ñu nekk sa njaatige góor gi woote na te kenn mënatu woote lu ëpp la mu woote mhm. ñëwal boo yéexee rek boo ñëwee dangay ngay am njaatige mais doo fi nekk njaatige kenn mhm. bind ko lettre bu siiw ba pare lettre bi mu tëjee ko benn verset coranique buy wax wa jituk min sëba bi naba in yaqinin mooy euh, baaxoñ boobu waxoon yonentu yàlla Suleymaan ne ko dem naa Saba gis fa royaume boo xam ne c'est une ren moo koy jiite bi tudd Balqis mhm. ne ko nag jant ba la ñuy jaamu ne ko information bu ma la jox bu wér la bu dëggu la mhm. mais Cheikhaani ba mu liiree lettre ba il a compris le message immédiatement xam ne nax wi daf ko bëgg a wax ne ko li ñu doon wut parce que xam nga tamit il faut loolu ñu taxaw ci tuuti mhm. diine islam bi du rek ay mbind ay wax kese islam bi deug la julli bi baxna wor bi dem ak makka gi nangam nangam mais yoy dafa am feneen fu mu lay yóbbuwaat. Mhm. dafay day pousser ci benen degré ci spiritualité bo xamné bo boo fa yeggee mooy li ñu wax sànq booba julit le monde bi soxla da ngay respecter l'environnement da ngay respecter toute l'humanité mhm. euh, waxuma motax bo boo déggee julit di taxaw di attaquer un chrétien wala un juif c'est parce que dafa am lu mu des a comprendre. Mhm. mais le Coran même. interdire na loolu wala tasubbu alladina yad'una min dunillah fa yasubbu llaha adwan bi ghayri ilm n'injuriez pas ce qu'il invoque en dehors d'Allah oui sinon dinañu injurier yàlla te yenn yenay cause bi yàlla ne nak bakar la buma acc aj ku ñu tungoomul mënoo koo laal mais ku ñu tungoom ba nga laal ko awma affaire ak ka ko laal mais kala tungom la amal affaire waaw donc yow mi ko pousser ba mu saga diine ji wala wax ci yow la donc waxuma la nit bi mais mala bi sax da nga koy jàngale nañ ci tradition du profet moo tax bu ma gisee léeg-léeg nga gis ku respecté xaj walla am muusam ñu ne moom tubaab la mhm. mais yonentu nettali nañ ne am na jigéen boo xam ne dem na dee na yonentu ne mu nga safara mais ba ñu laajee yonentu bi lan moo tax mu dem safara dafa wax ne dafa jàppoon benn muus tëj ko jox ko mu lekk jox ko mu naan mais libéré wu ko donc nga déggee ci ne lor leen daf lay yóbbu safara day yóbbu nit ki day yóbbu nit ki ci mbugalu yàlla mais la notion du contrefaçon bi ñu ciy déggee. Mhm. figure du style bi. Mhm. mooy fonk leen yërëm leen yiir leen dafa lay yóbbu ci yërmande yàlla loolu mooy la notion du contrefaçon bi. Mhm. donc c' est pour dire que léegi nag Mouhamed Ould Nahwi boobu Cheikhani ñëw Cheikhani mooy sëtu Cheikh Mahamadul Hafid Ashingiti sëtu beddi la bi nga xam ne tëneetu rabi bi ngay gis ñu di ko woy fii ci jumaa ji maama ma ko bind. Hmm. mooy beddi moom la ñuy tuddee Yusufa Tariqa mooy le le Youssouf de la de de la confrérie Tijaniya. xam nga yonentu yàlla Youssouf. waaw la. baayam Yaqub yonentu la. Mm-hmm. baayam Ishaq yonentu la. Mm-hmm. Mm-hmm. baayam Ibrahim yonentu la. ñu ne ni Youssouf mel ci nubuwa mooy prophétie. moom noonu la mel ci confrérie mooy tariqa. moom beddi donc baay bind na tahniyatul rabi bu mel ni bii bu bu rafet wala sax bu ko dàq. mais ci mbaaxam ak modestem jël bosam teg ko. ne nañu jël bu bedd bi di ko fi woy mhm. mais am na dëkk yoo xam ne Mauritanie boo fa demee bu baay bi la ñuy woy ñoom d'accord loolu mooy indi relation diggante baay ak Mauritanie mhm. nga gis shérif boo xam ne sëtu yonantu bi la alawi la di askanoo yonantu bi mais buñ ko dajalelee moom bu ñëwee jox ko doomu baay bi wala sëtu baay ñes bi d'accord alors bokk na ci tey soxna Aminata taxawaayu nag soxna yi ci faydu bi yow war nga ci war a mën am gis-gis